sëriñ bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin nee na jërëjëfati nee na moo ngi gën a sant di sunu borom moom mi ñu booleeg sëriñ bi di gën a sant di sëriñ bi moom moom sëriñ bi nga xam sunu borom boole ak moom. mu doylu lépp biir ak ci biti tey jii ak ëllëg noonu ngeen gën a sant bu baax di gën a jaayante ak moom nee na daanaka foofu doon na yem nee sëñ Saliou Fall mii wax lépp nee na lii mu wax lépp bëgg ci biir nee na xaruta jaa doole dara xanaa ndax amoon na la baax na ñi mu àndal gën koo déggee nii mu ko waxee nii muy waxal itam nee na moom nii muy waxal itam mu mu gën a dégg li moom mu gën a dégg li suñu taal yi wax baax ndax ndax waxi suñu taal yu baax bi lépp ngi lépp di sëriñ tey digal ko borom la dafa mel rek seen jotaay bii mën naa nekk li ñuy wax manifestation ci ak ci l'islam bépp dafa mel ne li wér mooy sëriñ bi suñu borom dafa def ci xol yi feeñal ko ci jëmm yi loolu rek la te sant nag sant dàkk ci sant sant dàkk ci sant nag nan koy defee mooy joxe sunu lépp sunu kenn kattan lu mu jamono ñu jiital te digle ak tere ndigal ak tere lu mu jamono te la ca des lépp ci lu baax lu mu ca xam noonu la def lu nekk ca sunu jëm kàttan kon nekk ci ndigal bàyyi tere nekk ci lu baax lépp nag nu def ko ngir am bëstëb gën a jaayante sëriñ bi parce que yéene parce que yéene liggéeyal sëriñ bi mu ne ni muy tënkee ay waxam ngir di ko jéem a gindee boppam du lu dul nanu góorgóorlu sax dara ci jaamu yàlla sunu kem kàttan liggéeyee ko sëriñ bi mu jaar ngi gën a nee na sant na leen jëmm ji nga xam moo ànd ak taw feex ju dolli bi ci yéen nee na loolu rek la dem nee na xolam seet na ci am na gën a ànd si ñoom nee na xelam dal na ci bu baax nee na am na ci yaakaar bu baax Seex bi ne léegi ñu xam ko léegi wuñu si dara ba suñuy xëy na nekk dara loolu sant sëriñ bi sant ak ci jaamu yàlla lépp a ngi biir waaye léegi yéeru sëriñ bi nee na lay dal nee na mën nu koo sant mën nu koo liggéeyee waaye nag góorgóorlu rek nekk ci loolu sant ci nag sant ak ci loolu mu ko tënk rek. sax ci jéem a def ndigal sa kem kattan sax ci jéem a daw ak tere sa kem kattan sax ci di yéene lu baax sa kem kattan di wax lu baax sa kem kattan di def lu baax sa kem kattan lépp na yàlla tax nga di ko def ak liggéey bi ko sëñ Tuuba waaw lépp ngi ci sëriñ bi nee na mi ngi lay jàmm beral ak jàmm nee na sa tënk bi ma soog na nee na li nga wax noonu ñëpp noo ngi ci biir man rek la kon jërë ngeen jëf nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm nag bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax di leen gërëm di leen gërëm bu baax a baax nee na loolu rek nga mën a tënkee waa ci biir loolu. yàgg fi loolu déwén Mbacke. nee na ndax li ma bëgg lépp mi ngi ci seen taxawaay bi. sunu xelanteel yëpp mi ngi ci seen bi. sunu mbébét yëpp mi te saa te nag. nee na loolu rek la kon jërë ngeen jëf. nee na loolu rek la mën nee na suñu xol gën naa sedd ci doomam xelam gën naa dal yaakaar gën naa dolli soññ wu nanu itam nee na ci ñaari diggante la ma war a nekk sax daal di sam sax daal di soññ suñu bopp sax nee na dina nekk ci diggante boobu rek jërëjëf ñu ngi leen léegi ñu ñaanal bu baax a baax a baax di ñaanal suñu bopp bu baax a baax a baax suñu bopp bi mu gën a xam suñu bopp te gën ñu ci suñu bopp maanaam lu ne noonu ñu koy gën a ñaan tawfeex ji mu may muy boole ak sëriñ bi tawfeex jooju noo ko noyyi. mu dugg ko baal yooyu. ba ca kanam. ba ca kanam. doo ko jàpp. jërëjëf jëf. dégg nga. ñaar ñu ngi dégg ndox rek waaye mënoon nañ fee toog ba jëm soo. te li ñu bëgg a wax yéen a leen ko bëgg leen koo xamal mën nañ fee yàgg ba moom bi jeex. kon nañ ko dégg ndox rek lépp mën na lépp mën na. bisimilah. bindu gars yi mu ngi ñuy jàpp ci tamit ay si ñaar wala alhamdulilah ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp tàllal ñaan na ñëpp tàllal waaye mën a toll na tàllal loxo góor ak jigéen amiin